nuyuwaat baax di leen siyaar aji saar aji nga xam ne fanee ci ginnaaw coow li xam ne xawoon na ci Sénégal mois de mars bi ñu passé te doxoon ci gënteem xoon na bakkan yi bare faatu ci moom moom la ñuy ne démb police dafa amoon benn patrouille bu ñu doon amal ci cité bii ñuy wax cité Mixita cité la boo xam ne saa ñu ko xel dem ci mbooleem scandale yu bari xew ci réew mi yoo xam ne xew na fa nee ñu démb police da ko faa jàpp police bu doon def benn raafal di patrouille ba ak si foofu jàpp ko nee ñu bi ñu ko gisee moom yorutoon benn carte ñu daal ko an sa carte d'identité yoru carte d'identité ñu daal di koy police garde à vue bàyyi trois matin dañ ko mujjee bàyyi mu ñibbi kon daal démb nee ñu ci cité yi nga xam ne cité la bu yéeme ci ci ci déggin ci Sénégal nee ñu fa lañ ko jàppee démb police moo jàpp ci benn ah, patrouille patrouille jàpp ko waaye nag ay kara ay trois heures du matin mujjee nañ ko bàyyi buñ sukkandikoo ci source nga xam ne moo joxe information yaatu baax di leen nga xam ne fan ci ginnaaw coow li nga xam ne xawoon na ci Sénégal mois de mars bi ñu passé te doxoon ci digganteem ak Ousmane Sonko taxoon na bakkan yi bëree bëri faatu ci moom moom la wax ne démb police dafa amoon benn patrouille bu ñu doon amal ci bii ñuy wax cité Mixta cité la boo xam ne saa ñu ko tuddee xel dem ci mbooleem scandale yu bëri yi ci réew mi yoo xam ne xew na fa nee ñu démb police da ko jàpp police bu doon def benn rafal di patrouille ba ak si foofu jàpp ko nee ñu bi ñu ko gisee moom yorutoon benn carte ñu daal ko an sa carte d'identité mu yoru carte d'identité ñu daal di koy police garde à vue bàyyi trois matin dañ ko mujjee bàyyi mu ñibbi kon daal démb nee ñu ci yi nga xam ne cité la bu yéeme ci ci ci déggin ci ci Sénégal nee ñu lañ ko jàppee démb police moo ko jàpp ci benn patrouille patrouille bu jàpp ko waaye nag ay kara ay trois heures du matin mujjee nañ ko bàyyi buñ sukkandikoo ci source bi nga xam ne moo joxe information bi